yàlla yala yala yala yala la ilala yala yala yala yala la ilala yala

ami internet Média Sénégal nuyu leen leen ku si nekk si turam ak santam tey nag ñu ngi fi nga xamante ne nii mooy reset reset ñu ñëw fii grâce à ki nga xamante ne nii mooy l' international Amath Diédhiou di euh, rendre hommage ki nga xamante ne nii mooy xaritam ñu naan kaa Ibrahima Silla ñu gën ko xam si cubb cubb yi di doomu Médina doomu Fass Gueule Tapée Colobane nekk taalibe borom daaru doon def liggéey bu am solo fii si Médina bi moom nag yàlla daal di koy daal di def li gën si moom donc tey ñu koy rendre hommage fii waaye tamit si biir rendre hommage bi Amath dafa ay don ci di di di jàppale nit ñi si si si weeru koor bi sel bi ñu nekk Amath Diédhiou nag lii duñ negulet ndax vraiment international la boo xamante ne tey nit ku social la nit ku mën lu muy def la nit ku baax la nit ku ñëpp xam si social la surtout fii si Médina tey nag mu def euh, don jënd ay saaku ceeb yu bëri jënd ay macha allah affaire yu baxe ne daal loo xamante ne ni daal dinañ si ñëw bàcc ñëgi lay nii ñaa ñu ngi lay fay di la jox sa wàccuwaay waaw di rafetlu liggéey bi bu baax a baax waaw yaakaar naa ne bi mooy quatrième année saa ñu wootee yaay bokk si ñi fay jëkk a teew comprendre rafet rafetlu nañ liggéey bu baax a baax di la ñaanal yàlla xam nga si barki weeru koor gi li nga bëgg yaa ko xam yàlla na la ko suñu borom defal si barki Seydina Mohamed bàcce ngay nit ku baax yow it yàlla na sa jàmm yàgg mais tey euh, ki nga xamante ne ni mooy international Ama Diédhiou ñu ñëw fekk tey ngeen dajaloo yéen ñëpp di ay xaritam ay magam ay grandam lépp tey avant tout yan témoignage ngi ñu mën defal si moom waaw amaan wax si moom day yomb quoi parce que suñu rakk la suñu xarit la comprendre nga macha allah quoi booy bu am yar la booy bu am teggin la te franchement boo xoolee bi mooy quatrième année muy def lii nii nii comprendre nga lii duñ ñu gulet ci amaat quoi lu ñu miin la si moom. moo tax dañuy lu lii di ko ñaanal comprendre nga mooy li ma ko war rek à chaque fois nee naa ko yow doo sax daanu mais da ngay jeng rek parce que borom bu baax nga yàlla xol jël sa xaalis di ko dugal si leneen. weeru koor nag dafa nekk weer boo xam ne weer bu sell la te suñu borom moo koy fayal boppam comprendre nga tey ñun la jox joxe si leneen la quoi tey ji nga yëkkati sa ay millions jënd ay ceeb ay xam nga ay affaires yoo xam ne yu xéewale yu bakkane ba ku ko gis macha allah xam nga nga nar ko jël xam jox ko jaam ñi kon loolu noonu mënuñu dul xam nga di ko ñaanal yàlla mu yokkute quoi di ko ñaanal tamit di ñaanal tamit famille di ñaanal papaam yaayam parce que tey lii nii nii bul fekkoon maanaam bul moom ñoom bu leen neexuloon lii nii du am quoi comprendre nga kon ñoom dañuy ñaanal famille yëpp comprendre nga jiitoo nga xam ne ñoom lañu àndal si liggéey di rafetlu lii bu baax comprendre nga baax a baax macha allah. tey mën nañ xam distribution bi peut-être nan la war a demee tey. waaw distribution bi mooy comme ni mu war a demee rek saa su ne comprendre nga parce que dañ koy jël ku si nekk après comme te heure bii nii instant yi heure bi daf ñu xat te ndogu léegi mu jot. comprendre nga ku si nekk dañ lay jox nga yóbbu sa secteur joxe fa ñi nga war a jox quoi affaire bi nan la war a demee parce loo xamante ni la xëy na maanaam tey jii nii mënoo ñëpp. ñëpp mënuñu am mais am nga ñoo xamante ni ne ñi yelloo nañ lii comprendre nga tey majorité bi ngay gis ni affaire yi bu ñu ko joxee du dem seen kër nga xamante ni xëy na ko ñoom lañ koy jox quoi mais buñ sañoon tamit ñëpp am ñëpp dañ leen ñoo xam ne dañuy dugg kër jox leen parce que lii nii loolu xam ne la ngi taxaw di ko gis mais tey duñu am ñun loolu neexuñu tey bu ñu sañoon ñëpp am mais nag suñu borom moo jëkk doxalee noonu parce que tey mayul ñëpp comprendre nga ñun tamit mënuñu comprendre nga di ñaan yàlla bu déwénee xam nga ñu def le maximum ba tey jii nii comprendre ñëpp incha allah même bu dul ñëpp sax maximum bi dinañu amaat quoi ñun loolu la ñuy ñaan. ayca jërëjëf kooku mooy kaddu peut-être ma jël rek leen Passeman Passeman jërëjëf moom mi nga xamante ne mooy Maxi Amath ah <laughs> mais doomu day amaat ah doom day amaat mais doomu day amaat ñu ngi lay. waaw ah, ñu ngi lay fay. tur bi nan la. tur bi Pazis la. Pazis ah. sa diggante ak Amath. waaw suñu diggante ak moom yàgg na xale la. tey ba ni ma nekkee Maroc ñibbisiwaat tey lii ma fekkee ko dama ci kontaan te aussi suñu fierté la chaque année mu ngi koy def te dañuy ñaan yàlla mu gën ko def xam nga tey lii ni muy def dafa rafet yàlla na ko yàlla fay xolam yàlla jàppale ko tey ñu ñun dañ koy xaar mu ñëw biir équipe nationale te yàlla na ko yàlla def yàlla na ko yàlla moo teg incha allah rabbi kontaan ndaw nga gis euh, sa morom presque sax la ñu mën a wax parce que sa doom day ngeen yàgg loolu mu mu nekk international tey yàlla def tey ubbi wërsëg bi lépp yaatu mais xalaatul dara lu dul di def social tey di œuvre sociale ndax même bu dul lii sax amaat ñëpp xam nañ ko si social tey nan nga gisee loolu. waaw amaat moom xam nga moom nitu nitu social la tey day jàpp ci lu nekk te kenn du yëg ci mi ngi si làmb yi nit ñu feebar yi leneen nag leneen ak leneen. tey ñun xam nañu tey dañ koy ñaanal rek yàlla may ko wér may ko kàttan gën ko jàppale yàlla may ko lu kawe kawe kawe kawe njottam ci kàttanu yàlla ak mbaaxam incha allah am solo ñu dem si si mag ji Passemane <laughs> maa lay fay ñaan Passemane tey sa raq amaat euh, muy international tey gis nañ ñu bëri dañuy am ay raq mais jafe na nga gis leen à seen wet bu ñuy def yenn yu mel nii tey nga gis amaat nekk xale tey bàyyi lépp di dox si sociale tey nan nga gisee loolu ak sa digganteeg moom tey ah waaw loolu dañ koy renforcer la c'est pas la première fois muy def loolu waaw chaque année mu ngi koy def comme li Bathie wax rek àdduna moom mënuñoo satisfaire ñëpp dañuy def le maximum rek mais ñiy essayer daal ak euh, prochaine année ñëw incha allah ñu xool daal ñu xool nu mu gën a kii rek incha allah. mais amaat lañ mën a xaar si moom jamono que gars yi ñu ngi naan war football équipe nationale ak yooyu noonu. ah incha allah rabi ñu ngi ci bu baax a baax a baax waaw ñu ngi koy ñaanal yàlla bu baax te gëm nañ incha allah dina marqué waat retour am ci kàttanu yàlla waaw moom na góorgóorlu rek ci kaw ca kanam rek affaire yi moom amul secret liggéey la quoi waaw liggéey la rek loo sonn rek bu subaa nga gis njëriñ mi ko waaw loolu kese la allah rek. am na solo mbër Angel mbër mbër mbër mais mbër ñu ngi lay nuyu. waaw ñu lay fay gaan. mbër mbaa yaa si jàmm. maa si jàmm da nga entraînement yi ak weeru koor gi. waaw ñu si koom di ko gérer rek bilaay eh. comme noonu bari sëñ Bamba. mais tey ñu gis doomu Medina doomu Fass Gueule Tapée Colobane muy l' international Ama Diédhiou weeru koor gi muy def social yu mel nii tey nan nga gisee loolu billaay bég rek barke sëñ Bamba di ko ñaanal ci kaw sa kanam moom moo xam lu mu bëgg yàlla na ko suñ borom defal ko parce que lii yombul barke sëñ Bamba social bi muy def nii yombul ba ci ñun mbëri fii booy ku ciy bëree day def participation barke sëñ Bamba yëkkati xaalis jox la ñu koy ñaanal daal ca kaw ca kanam rek. billaay. ñu mën a wax sa diggante ak Amath Amath Amath sunu grand la. billaay ñoo nekkandoo fii fowandoo fii mook sama grand papa Aziz ñoo doon ànd loolu yàgg na. billaahi mu nekk lu yàgg billaahi te lu yàgg dëgg la barke sëñ Bamba. tey la nga koy conseillé ndax gars yi ñu ngi ñu ngi naan war na ñëw équipe nationale temps gis na mi ngi dugal loolu mooy yoon mooy yoon day ñëw incha allah ñun amaat mooy suñu yaakaar barke sëñ Bamba moom lañ gëm mooy suñu yaakaar barke alxuraanu karim incha allahu rabi day ñëw équipe nationale barke sëñ Bamba. waaw di ko conseillé tamit xam nga mu gën a yokk entraînement yi xam nga xam ne ñun waa Minna ñëpp ngi si ginnaawam bu ragal dara. ak sëñ Bamba ci kaw sa kanam. jërëjëf mi ngi noonu booy dogo di sunu mbër macha allah moom it ñu koy ñaanal jàmm ak yàgg naa ne rek peut-être du ma bàyyi parce que ñëpp laa jël fi mu ne nii moom du ma bàyyi kenn ñun laa champion bi ñu ngi lay. ziar gaynde gi naka mu leb jàmm. mbaa yaa ngi si jàmm rek sant bu wërëwër naka koor gi. waaw sant bu baax rajo tur ah? tey nga gis amaat Amath l'international nekk un jeune di nekk Médina di fi def social tey nan nga gisee. waaw ah, Amath lii yàgg na nga def du du guleet quoi. Mm-hmm. xam nga ñun suñu rakk la suñu booy la te ñoo forme a waaw ñoom lu def rek dafa defe naa si ñun la ko si ñun la koy euh, la la ko sax dootee loo gis nag si àdduna du liini def ko yombul de xol moo koy def quoi comprendre nga mais booy wow yàlla na ko yàlla bàyyi xolam rek waaw. waaw ñu gis mu jamono ji mi ngi def performance mi ngi dugal mi ngi avancé tey. lan nga koy conseillé en tant que grand man lu ma koy conseillé mooy du ma jug si di ko conseillé man chaque jour dama koy conseillé mm-hmm. parce que du alal du dara moo tax mooy conseillé sama rakk la sama rakk la foowoon lool doon ñëw gaale di fa reeree di fa defee lépp comprendre nga ku xamul sax da ngay comprendre ne lan la ko gars yi toppee fekk toppee wuñ ko dara yaram ak baaxam xam nga ak mun a kaf mun a foo mun a ree lu ma la fu mu tardé rek nit a ko fa tardel moom lu ma koy conseillé xam na ko mooy li ma ko yàgg conseillé rek. fi ko teg nii baax na na xam gars yi ba ñaanal yokku ko mu gën a yokku liggéeyam day ñëw équipe nationale barke Alxuraan mi ak talent bi mi ak lépp équipe nationale amu ko ëpp talent bi laay xam naa ko sama booy la taleeg si lépp day wane boppam dina la aka yàlla baay xolam rek boo mu doomu ñaay moom dañ ko ñaanal duñ ko ñaanal rey quoi gudd fan rek lañ koy ñaanal yàlla na ko yàlla may gudd fan ak wér gu man sama rax day bëre booy dogo mooy sama rax mais combat am day day jot mu jàpp bàyyi lépp jàpp si moom ak Pa Serif booyoo da la ñuy ñaanal yàlla quoi Médina bi parce que ñun bu ñu xewlee du ñu gis kenn man ak sama mag bu góor daam ñooy ñëw reyante génnee weccet bu ñu am xam nga jaayante ko def ko si combat booy bi comprendre nga mais Pa Serif ak Amath mënuñu leen bañ a ñaanal te barki arxuraanu karim bu dee jullit rek ah bu ñaanalee moromu jullitam mu nangu ñaar ñooñu billaay wallaay talaay dañuy ñaar dañuy ñëw équipe nationale billaahi amaat moom day ñëwaat équipe nationale si kàttanu yàlla ak mbaaxam billaahi yaa ma gën a xam. jaajëf Aïcha Abdoulaye macha allah dégg ngeen kàddu am na solo donc mu def ay témoignage yu rafet si ki nga xam ne mooy l' international Ama ji bi ñu ngi lay nuyu. waaw maa leen fay ñaa di leen jox seen wàccuwaay di leen jox seen li ngeen moom parce que toog fii ba heure bi yombul xam nga loolu moo moo gën a doy waar te heure bu dogu fekk leen fii yëpp ngeen di filmer ndax lan amaat moo ko waral. ayca tey ñu ñëw fekk Amath di def social tey ñu fekk fi ay ceeb ak ay kiit meew yeeg yëpp mi ngi fi tey mën nañ xam tey euh, affaire yi lan ah affaire yi ñaa mooy comme li ñu wax rek xam nga lii c'est pas la fois ñu def ko lii presque mun naa mooy suñu cinquième xaw ma moo tax ñu koy def am nañ fi ay presque un tonne ceeb ak ay kii yu bëri panier yu bëri yoo xam ne sax mënuñu ko compter ñun waaw pour indi ko rek jox ko ñi nga xamante ne moom chaque année mu ngi leen koy jox te ñooñu yelloo nañ ko ñu jox leen ko ak ki nga xamante ne mooy doomu ndeyam di Ibrahima Silla nga xam ne yàgg naa seek ak moom teranga tey ñu ngi nii sax kër yaayam lañ fii lañ jóge si kër maire bi fi mu nekkoon nii set jox ko teranga yi nga xam ne mu ñoom ñaar ñoo ko seekoon pour ne na àdduna amul solo waaw weeru koor moom loo si def ngëneel la rek ñi bu la ñaanalee rek yàlla mooy fay noonu la demee. tey ñu diggante Amath ak bu nekk lu yàgg à chaque fois da koy rendre hommage tey lan nga ñu mën a wax si diggante waa waaw ànd bu yàgg rek ànd bu yàgg moom nee nañ loo gis de nañ la ko lajoor loo boo ko tubaabee mu ne yàgg seen ànd moo yàgg rek xale depuis Amath Dug ñëw fii si biir koñ mi Ibrahima la mës a àndal ba ni yàlla di defee ay xéwalam tey Ibrahima lay àndal ba ni ko yàlla jëlee fii tamit ba tey ñu ngi wane ni moom fàttewul Ibrahima avant et après tamit li mu doon dund ak Ibrahima même bu fi nekkulee sax moom lay continuer di def ak moom mm-hmm. looloo a lii nii yëpp mm-hmm. waaw tey nga defal ñu quelques témoignages ci Amath ndax dégg nañu mooy borom social yi tey macha allah mi ngi def lu am solo ci Medina bi. na waaw Amath moom xam sama rakk des fois boo waxee dara ñi la naan xëy na day wax jëmale ci boppam wala ak yooyu mais man du loolu moo tax may wax mais ku xam Amath Medina xam ne bu dul lii nii sax ay nit dañuy ñëw di ko wax seen ay bu bokkul ak lii mu jàpp ci mbër am na fi combat wax ko mu dugal si loxoom leneen ñeneen ak ñeneen lu xew la Medina mun naa ne loxoom mi ngi si biir xanaa lu mu yëgul mais lu mu yëg lu ne loxo mu ngi ci biir waaw kon kay sant yàlla rek man baaxam moom su ma koy wax moom man foo ko natt foo ko natt na parce que waaw yoo xam nga sa li may wax. ayca leen sant di leen gërëm rek di jox ñi ñëpp seen wàcc waaye képp koo xam ne ñëw nga bàyyi nga sa yitte boobu heure koor gi ndog fekk la pare di leen sant di leen gërëm waaw di leen ñaanal gudd fan ak wér chaque année daal li ñu mën ren yàlla nañ ko mën déwén bii ñëw lu ko ëpp loolu la ñuy ñaan yéen it yàlla bàyyi leen fi ngeen am gudd fan ak wér seen loxo set na seen liggéey jaar na yoon yaa ngeen jëf suñu jarbaat ñoo naan kaan Marème Mimi Marème ñu ngi lay nuyu delloo ziar maa lay fay sama nijaay bi Marème ñu gis tey Amath di def social ci Médina bi duggulër nag parce que ñëpp ñu ngi koy waxtaane mais tey sa diggante ak Amath looñ ci mën a ah Amath dafa nekk nit ku baax taxaw nañu jàppale nañu tamit musul changé xam ñu naan nit parfois di nga am nga beew mm. wala nga fàtte sa nitu démb ñu la taxaw mais moom musul def loolu lii mooy cinquième édition mu koy def te ñu ngi koy ñaanal chaque année mu koy def xéewal yi a yokk incha allahu rabbi jamono ji nag gis nañ mi ngi def ay feu di dugal ba si gis nga sànq doomam bi mi ngi naan dafa mën a daw tey tey tey nit ñi ñu ne Amath dafa war a ñëw équipe nationale tey waaw loolu moom dëgg la mais xam nga Amath xale la te mu ngi doog a door kon ni nga wax rek dañ koy yokk di ko ñaanal bu ko defee nag tuuram su jotee si équipe nationale boobaa dinañ kontaan ñun ñëpp. dinañ kontaan ñun ñëpp mais ñu ñëw si social bi muy def ndax nee nga dugg leen mais tey lan nga koy conseil ndax mu ngi koy def di ko defaat te am ñoo xam ne social bi ñu ko defee benn yoon rek dañuy foog ni dafa am limite tey en tant que lan nga koy conseillé si social bi mu nekkee. man en tant que jarbaatam dama koy wax ne fu mu teg tànkam bu mu ko dindi su ko yokkul bu mu ko wàññi ndax lii dafa bëri weeru koor nga yëkkati jox ñoo xamante ne. yelloo nañ ko te seen euh, loxo jot seen ginnaaw loolu rek wërsëg bi suñ borom mu la siy defaral munoo xam munoo ko natt daal mun na daal yokkute mun na doon gàllankoor buy ñëw si yow suñu borom téye ko moo tax fu mu teg loxo ma bu ko dindi na ko yokk yàlla may ko gudd fan wér dolli ko xéewal ñun ñëpp ñu mën si bénéficier yow. mais lim lay jox nga <laughs> maanaam li la amaat di jox nga koy jël di ko jënd ay beñe dugub ak ay suusal ak yow lekk yu neex yi nga koy ndax moom man moom laa gis mooy sama nijaay mooy sama pap tamit eh. faa mu profité macha allah lekk yi ngay denc sa yow Marème loolu dama ko sonal nag sama jarbaat la lu ne laa koy wax mais ba tey euh, xam nga rek di ñaa ak benn baas ti woon fi nga xamante ne ni mooy reset nii naa ko waxee si koor gi moom képp kuy joxe ndogu rek di œuvre si social ñun waa Média Sénégal dañ ciy jàpp ñëw couvrir ko donc loolu mooy sunu sunu rôle fii nga xamante ne nii mooy si Sénégal ci àdduna ak fépp ñu ngi fa donc di leen jox rendez-vous beneen yoon di leen xamal nag tey ki nga xamante ne nii mooy l'international am Diédhiou moo woote woon jindoon saaku ceeb yu bëri jënd ay ay meew suukar rek yëpp di ko jàppale ñi nga xamante ne ni mooy tey euh, waa Médina du ma ne néew doole sax mais waa Médina la koy jàppale si li nga xamante ne tey mooy weeru koor gi ndax bu ñu tollee si vingt-sept jours weeru koor gis nañ ñu day métti weeru koor dafa métti woor dafa met donc boo wooree ba am vingt jours tey sa moyen lépp day day day mujjee wàññeeku donc nag tey ki nga xam ne international Ama Diédhiou la moo ñëwaatoon doon jàppale waat waa goxam xaritam yeeg àndandoo mi waaye tamit di si rendre hommage ki nga xamante ne ni mooy xaritam ñu naan Ibrahima Silla muy cubb ñu koy ñaanal fa mu ne gënal ko fii nga xamante ne ni fa la jugee ñu koy ñaanal yàlla yërëm ko xaaree ko aljana bi nga xamante ni mooy firdawsi Ibrahima Silla Tubu walloof ñu lay ñaanal euh, yàlla xaaree la aljana sunu waajooju noonu waaye Amath Ndiaye Diédhiou ñu koy kontaanee bu baax di ko ñaanal jàmmam yàgg di ko naan bëgg nañ ay ca benn baas sama caméraman yaa fi ne.